salaamaaleykum les gars ça va ça fait que tout va bien tey ñoo ngi fii si diwaanu Bawol tey nag ñu ñëw fas yéene indi ay questions yu doy waar questions yoo xam ne si ay questions bett laa ko tuddee maanaam questions yoo xam ne bu daf la ko laajee automatiquement rek yow si ñu boom sax doo xam li nga war a tontu leen tey na ngeen ree ree ree ba tëdd suuf ba ba ngeen préparé nag du yomb. grand tur bi nan la. Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye. Cheikh dana laaj ñaari. baat. waaw maanaam 325 nu ñu koy waxee si wolof. 325. waaw. 325. waaw. nga ne. 325 nu ñu koy waxee si wolof. 325. waaw. <laughs> mooy eh, juróom-ñaar fukk. mooy juróom. 325. waaw. mooy juróom-ñaar fukk. juróom-ñaar fukk. waaw sama gars yéen a ngi dégg doon mooy juróom-ñaar fukk. ba léegi garaawul. waaw wala ngaan. wala ngaan. waaw ak ragodaat la wala ngaan ak rogalaat. amul différence. amul différence. wallaahi. ko déggee. wallaahi. wala ngaan de moom dem na ba ci ndox. waaw waaw dem na ba dem na ba ci ndox dem na ba ci courant. wala ngaan dem na ba ndox dem na ba ci courant. waaw. kay eh, daal ko déggee. ah man doon nu la ca xam moom. nga doon nu ñu koy waxee si wolof. 325. waaw non xamuñu ko. xamoo déedéet. juróom-benn fukk ak juróom. juróom-benn waaw. wala ngaan ak rogalaat mooy différence bi. walaat ak walangaan ak rogalaat. walangaan boobu dafa fees bay tuuru. walangaan dafa fees bay tuuru. dafa fees bay tuuru. waaw dafa fees bay tuuru loolu dafa romb. waaw waaw rogalaat moom. rogalaat loolu boobu day day day day sim rek dafa dafa mel luy jege rembet. ok kon sama gars yi yéen a ngi dégg doo. ñu xool boo xam maa ngi xaar si commentaire yi merci. ak saa fa ak ak roogalaat. waaw ak roogalaat. ah ñoom ñoo yem rek. wala walangaan mooy roogalaat roogalaat mooy walangaan. amul différence. ah ah man de gisuma différence. <laughs> yéen a doon nga gisee. sama gars yi ba léegi si question yi ñoo ngi si suñu yaay ju baax ji ñu fekk ko fii si place am yaay boobu dina la laaj maam 325 nu koy waxee si wolof. 325. 300. juróom benn fukk ak juróom. juróom ak juróom. waaw. juróom benn ak juróom la wax. ñu koy xaar commentaire bi. juróom benn walangaan ak régolaat lan mooy différence walangaan ak rogalaat loolu différence walangaan ci suuf lay wal. rogalaat ci kaw lay jóge walangaan mooy loo sorti mu walangaan rogalaat mooy looy teg nii muy sotti ku nii. mooy rogalaat. loolu rogalaan. loolooy différence bi. waaw loolooy rogalaan maam différence wala ngaan. waaw ak wala ngaan ak rogalaat. waaw. rogalaat de mooy maanaam lu fees bay kii rek. lu fees euh, bay tuur lu fees bay rogalaat. rogalaat mooy maanaam comme ça loo xam ne day day toq rek affaire yooyu rogalaat di wàcc ndànk daal. day toq rek. ah wala ngaan daal mooy mooy loo xamante ni lu bari la daa tuuru. daa waaw lu tuuru moo wala ngaan. Ah, rogalaat nag moom moom tuut tuuti la. mooy tuut waaw waaye yéen a ngi dégg. noonu noonu la demee. yéen a waaw noonu la demee sax. merci beaucoup man 325 nu ñu koy waxee ci wolof. 325 nu ñu koy waxee ci wolof. waaw moo lan nga ni. 325 nu ñu koy waxee ci wolof. 325. ah daa mel ni bu ñu nee 300 de xanaa juróom-benn fukk la. waaw 25 kon juróom euh, euh, fukk ak juróom moo ciy tegee. fukk waaw. 300 fi ko juróom. 375. nan la ko ko mën a maanaam juróom ñaar fukk ak juróom. yow waaw waaw. juróom benn fukk ak juróom. juróom benn fukk ak juróom. sama gars yéen a dégg loolu nee na 325 mooy juróom benn fukk juróom. waaw léegi beneen mooy. waaw maam rogalaat. waaw ak walangaan li différence bi. rogalaat ak walangaan. waaw. walangaan moom ci ay suñuy ah suñu waaw suñuy maam. waaw mooy walangaan. waaw wa waaw non walangaan. y' a y' a bon boo ma leen bëggee wax dama leen wax lu leer. xool danga daa am sëb néeg. xam nga ni ma la wax. léegi néeg bi. xam nga day am desant ndox mi day ñëw. booy reculer. waaw waaw mais néeg bi day walangaan dañuy fukk. ñenn ñi jël ay seng di ko ci fukk. comprendre nga li ma la wax. waaw lool waaw bokk na ci walangaan. waaw ah. rogalaat moom. mooy lu fees. bu feesee ah. ba nga xamante nii amut fu mu nekk la ca des mooy rogalaat. mooy rogalaat merci beaucoup. merci. quel intellectuel. waaye moi je m'appelle Khalil. j'habite à Ndoyène. Euh, de Diagondoy. oui. oui ok merci beaucoup. merci beaucoup oui. roogalaat ci suuf lay jow walangaan ci kaw lay maa walangaan. waaw. li différence walangaan ak roogalaat. walangaan. man dégguma wolof de pël laa dégg. waaw. caban jéedi. caban jeetati. ah xam nga ne walangaan day day day day day walangaan ku ne xam yaatu. rogalaat nag moom day day day day rogalaat di ñëw rek waaye walangaan moom da yaatu. maa wala ngaa xam mooy loo xam ne day dem rek moom. waaw day dem rek moom wax dëgg yàlla am na ku ñaan danga naan yàlla na xéewali baawan saawan walangaan kon kay walangaan nag du morom rogalaat. léegi rogalaat. rogalaat moom moom wax dëgg yàlla am nag moom defut ba wut walangaan nag day ñëw bombardé lépp dëgg neexul. moom daal day yàq. yaa ilaha illallah walangaan day defar. day defar day defar ndax taw bi bu walangaanee kër yi ban yi danañ màbb. étage yi duñ ko yëg fóote étage yi duñ ko yëg ku defar sa kër ba mu baax doo ko yëg waaye wala ngaan moo dàq rogalaat. moo dàq rogalaat man de moom a dàq rogalaat dëgg neexul. moom it bu baax sax. 325 nu ngeen waxee wolof. 325. 325 nuñ koy waxee ci wolof. <laughs> juróom benn fukk ak juróom. juróom benn fukk ak juróom. waaw. waaw loolu la juróom benn sama gars yéeg a dëgg moom ne juróom benn fukki juróom mooy 325 <laughs> yéen a nga ko déggee man daal noonu laa ko jàppee 325 mooy juróom benn fukk ak juróomi dërëm juróomi dërëm waaw léegi maanaam maam rogalaat rogalaat ak walangaan la mooy différence bi ak walangaan mooy moo bii français la bii olof la mais moo bii français lii bii olof la rogalaat ah jàpp naa ne français la walangaan mooy olof waaw rogalaat mooy français walangaan mooy wolof sama gars yi dégg dégg doo noonu la loolu de laa jàpp man. Rogalaan ak Walangaan maanaam Rogalaan day ñëw rek def direct. waaw daal dugg waaw. Walangaan nag Walangaan day def nii waaye day gudd moom. day gudd day jaaw waaw. yéen a ngi ko déggee. noonu laa ko déggee. ñu ngi lay def. waaw jaa merci. waaw. dañu doon laaj maam 325 nu ngeen ko waxee si wolof. 300. 325. 325. juróom-ñaar fukk ak juróom. déedéet juróom-benn fukk ak juróom. déedéet laa ko déggee. papa euh, ngi doon doon ñetti téeméer. ak juróom ak ñaar fukk ak juróom. ñaar fukk ak juróom. mais 325 mooy ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci baatu wolof. ci baatu wolof. yow da nga ko déggee. noonu laa ko déggee sama waa ji d'accord nga non non non non 325. juróom benn fukk ak juróom la. ci wolof waaw waaw. mooy ah. ñetti ñaar fukk juróom. ñaar fukk ak juróom man d'accord naa ñaar fukk ak juróom. kan si kii nga d'accord la perfection juróom 300. waaw waaw. benn fukk juróom laa d'accord. juróom benn fukk juróom. waaw kon de instant yii ñaar ñaar la seen mbas bi daa seere ñaar ah, mooy rogalaat ak li différence rogalaat ak walangaan walangaan ndox mu tuuru la walangaan wala mu taw ba walangaan rogalaat nag moom muy lu jóge ci bët di wala mbuus mu waaw loolu mooy rogalaat ko dégg waaw maanaam rogalaat lu bari la ak lu néew rek rogalaat ak walangaan lu bari la ak lu néew man noonu la ak lu néew waaw tuuti ndox ak ndox mu bari quoi walangaan walangaan mooy ndox mu bari tuuru rek wal di dem rogalaat rogalaat mën naa doon lu tuuti rek loo xam daa mbuusu ndox gooyer wala benn kaas mu tuuru walgaan wala lu mel ni rongooñ affaire papa Diaw wala lu mel ni jarab yi lem yi nii boo ko kiiyee buy toq buy day day toq day rogalaat waaw. saa boo lekkee aussi nii ba pare ñeex mi jaar sa yi loolu rogalaat la waaw. léegi walangaan. mooy ndox mu bari mu tuuru rek. ndox mu bari tuuru. naa. d'accord naa Assane ni ma waaw roogalaat mooy loolu rek boo lekkee pare lii roogalaat ak ndox mu tuur ba ëpp. léegi papa maam nu la gisee maam léegi maam société bi léegi ñu demee léegi xale yi presque wa maam dëggutum wolof bu baax maam français bi lañ gën a maîtriser. waaw njàngum français mi daa doole ci ñoom parce que boo yore sa doom au lieu nga yóbbu ko daara ñu jàngal ko baati wolof da nga koy jàngal français même bu ñuy nuyuwut sax duñ wax asalaamaaleykum ay bonjour wala booy sawa loolu moo tax ñu ëpp lu ñuy wax ci français. loolu mu wax am na solo école lañ ca war a jàngale kàllaamay olof parce que xale yi fi mu toll nii kenn xamul ci dénneer lu mooy lan kenn xamul ci taaxeer lu mooy xam mooy lan kenn xamul ci néggandiku mooy lan waaw kenn xamul am pay mooy lan te loolu lépp baati olof. asalaamaaleykum maam baatu wolof la wala. asalaamaaleykum baatu arab la. jàmm ngeen yendoo wala nanga def mooy baatu olof waaye asalaamaaleykum baatu arab la. laaj day lu am solo. mais loolu li ëpp ci li ko waral ci ñenn ci nit ñi la parce que utiliser nañ français bi ba boo xoolee seen lépp moom la parce que li nga wax nii am naa benn copain bu jóge États-Unis ñu ànd ci oto may wax ba tuddu daru mais daru gi daf may woo sax nekk Italie moom di ko ree quoi daru gi daf ko jaaxal te daru comme ni ñu koy waxee ci olof mooy comme presque sa masa waay teg ma ni nii xam nga li daru la xam nga daru bokkut ak bebaru nii mooy bebaru quoi mais moom daf may woo sax Italie di ko ree daru daf ko jaaxal te sénégalais la fii la juddoo fi la yaroo papaam ñoo bokk koñ man ak moom ñoo defandoo lépp. waaw ah, fi mu fi mu daanelee rek foofu laay commencé loolu la. Eh, maam dañuy gis ne léegi maam tey jii boo waxee baat France juum si sax maam si nga gën a rus que maa ngi wax baat wolof juum si. mooy loolu ngaa da ngaa bàyyi sa culture dem fële loolu bàyyi sa culture la rek loolu la rek loolu mooy li mu wax nii rek. ki nekkul paaraay maa war na si. bàyyi sa cosaan bàyyi sa cosaan la. maa paaraay moom ci lañ bokk parce que fi mu boo nee boo nee kilifa yi boo nee bàyyi gars yi ree la te oh, bàyyi nga war a tubaab mooy wax papa loolooy problème bi parents yi ñoom ñoo ñoo ko kii fi na am na parents yoo xam ne au au le début buñ ma boo leen ma saan wax papa dañ lay dóor pes mais léegi fii boo nee boo nee boo nee bàyyi ñu ñu mere la.